mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teelu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalalaat ki di dalal ki nga xamante ne moom moo di may mun a Samb Cissokho nekk sage femme d'État waaye tamit nekk coordonnatrice en santé de la reproduction foofu ci district sanitaire bu may mun a ñu ngi lay wax dalalak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu nag danga lay jaajëfal bu baax a baax wax dëgg yàlla ci nangu bi nga xamante ne nangul nga ñu ko wuyu ci suñu invitation bile Mm-hmm. ok asalaamaaleykum mboolo mbooloo mi mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di la jaajëfal ci invitation bi mm-hmm. di ko rafet jaajëfal ko bu baax a baax tey nag mbokk auditeurs yi ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum euh, PREP waxtaane lépp lu jëm ci li nga xamante ne moom moo di santé de la reproduction ñu daal di taxaw rek ci foofule tey wax ci santé de la reproduction bi nga xamante ne moom moo soxal euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay adolescence euh, tollu ci benn bunt boo xamante ne nekk ay ndaw pour dem ci phase de maturité tey jii rek laaj bi ma lay laaj soxna Maimouna si Cissokho santé de la reproduction ci misaal lan la wundu waaw jaajëf Fatou euh, xam nga santé de la reproduction nekk na loo xam ne nii dafa bokk ci àddina ndax nit koo gis mu juddu ak muy dox man nañ ne ni ko may meññeef ay nit la te de la reproduction boobu moo ñuy permettre mhm. ñuy vraiment di augmenter li ñu wax la population mm-hmm. euh, des humaine mm-hmm. donc centre de la reproduction am na solo solaay boo xam ne nii dafa nekk euh, point boo xam ne il faut ñu koy ñu ciy wax mm-hmm. ndax li ñu remarqué Sénégal lu ëpp nit ñi dañ ko réere ndax léegi sax tane na ndax léegi ñu ngi koy dugal ci programme euh, d'éducation nationale mais ba léegi des na ndax li ñuy bëggoon mooy au niveau des familles même ci biir kër yi nit ñi di ko waxtaanee ak seen njaboot ndax ñuy mën a am la bonne information comme niñ koy wax chaque jour. Mm-hmm. waaw ndax gëstu yi il faut ñu am wax ju leer pour mën ko teg ci njaboot gi. Mm-hmm. rawatina nag les adolescents jeunes. Mm-hmm. adolescents jeunes yi war nañ leen di leeralal bu baax a baax a baax lan mooy santé de la reproduction. waaw ndax loolu aussi pour ñu mën ko réussir il faut que ñu wàññi tuuti tabu yi am ci kër yi. Mm-hmm. ndax mën a dugg ci waxtaan bi bu baax. dëgg la média yi dinañ wax waa santé ñu ngi wax mais il faut aussi famille waajur yi di oser di ci waxtaan ak seeni njaboot. Mm-hmm. ndax ñu mën am yenn mbégteel yi. Mm-hmm. Euh, yaa ngi koy wax euh, mu mel ni santé de la reproduction dafa euh, mel ni sujet boo xamante ne dafa tabu particulièrement ci ñi nga xamante ne moom moo di la frange jeune de cette population tey jii ngir ngeen mën a am résultat ci ci ci ci ci ci wàllu woowu ban mécanisme de communication vraiment ngeen war a jaarale parce que société bi dafa am nañ ñu mooñaale mun nañ ko wax nii ci ci ci ci kaw mais bon pour nga wax ko directement personne concernée bi defe naa ne du yomb ban mécanisme de communication vraiment ngeen di utiliser certainement pour wax ndaw yi nii ngeen war a moytoo lii ak li ak lii ak lii. waaw merci mécanisme yi ñuy utiliser comme ñun ñu ngi ci euh, santé. bëri na ndax surtout nag li ñuy gën a appuyer mooy les les acteurs communautaires mhm. ndax ñun ñu ngi ci hôpital yi ñu ngi ci structure yi nekk ñu en contact direct avec la population waaye ñu ngi tàggat ay gune am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi leen di wooye sax les pères ado pères ado ndax ñoom ñoo war a accompagner seen moroom yi mhm. ndax ñoom bu ñu ñëwee ñu former leen ba pare ñoom war nañ mën a dem euh, partager liñ leen formé ak seen moroomu euh, xale yi mhm. ado jeune mhm. am na tamit li ñuy formé les bàjjenu gox mhm. les euh, leaders comme comme imam délégué de quartier yi informer leen jox leen information yi ndax délégué de quartier yooyu ak les les leaders yi nekk ci biir gox yi foofu rek ñun lañ mën a jaarale pour mën a jàllale suñu information leeralal ndax ñoom bu leeree si ñoom rek waajur yi bu ñu ñëwee si délégué de carte bi dina leen gën a jàppale ci communication bi ndax am na tamit ay li ñuy wax ay visite à domicile li def mais visite à domicile yooyu mënoo ñëw rek ndax comme liñ ko waxee si je tabu mënoo ñëw rek dugg ci kër bëgg a wax waxu centre de la reproduction mhm. dafa am ay jaarale mhm. loolu aussi c'est des techniques de communication yoo xam ne nii ñu ci tàggat mm-hmm. ndax ñu mën a leeralal nit ñi ndax xale bu yoree kumpo kumpo boobu il faut mu def tout pour dem xam lan la mm-hmm. soo ko ko leeralale ba mu xam ne du dara dina wàññi lu bëri ci population bi mu xam ne dina war a mën a concentré wu ci la leneen mm-hmm. balaa muy xalaat euh, di euh, yeneen yi ñu yi ñuy njott boobu toujours li mu bëgg ko bëgg am doom bu exemplaire doom boo xam ne nii du ko du ko du du def loo xam ne nii euh, euh, safaan du du def safaan bo mm-hmm. surtout nag du li jëm si santé de la reproduction mm-hmm. waaw li jëm ci santé de la reproduction yaay ju ne da ngay bëgg sa doom par exemple mën nañ jox exemple jeune fi boo xam ne nii dafay ñaan yàlla euh, doomam day ñaan yàlla jeune fille boobu doomam jooju téye boppam ba kër ba muy am borom kër. Mm-hmm. xal bu góor aussi mu téye boppam jàng concentré wu ci jàngam bala muy wax waxu sexualité. Mm-hmm. mais loolu aussi xale yi il faut ñu canaliser leen de telle sorte que seen xel du du du dem ci loolu. waaw. Mm-hmm. d'accord muy jigéen comme muy góor. comme muy mhm. euh, fii on a tendance à bu ñu waxee rek c'est vrai que santé de la reproduction ñaari ni la mais mu mel ni li ñuy toléreel góor yi daanaka euh, un dixième bi toléré wuñ ko ku jigéen ki te pourtant am na ay maladies sexuellement waxu ñu sax grossesse ndax am na ay maladies sexuellement transmissibles entre autres ndax foofu aussi tamit il vous arrive ngeen mettre l'accent vraiment sur sa merci loolu moom dañ koy faral di def waaye comme ni ma ko waxee rek xam nga formation yi doyul mm-hmm. mais ñi jot am na ñi ñuy wax cercle cercle des des des adolescents mm-hmm. les pères ados dañ leen di former mm. de telle sorte parce que lu ci ëpp père ados yi jaxas la am na jigéen am na góor mm-hmm. donc ñooñu bu ñu leen bu ñu leen former ñun parce que si si biir euh, langage sax duñu duñu naan kii jigéen la wala kii góor la ndax fi mu ne nii toll foo xam ne ni booy yar muy sa doom bu góor muy sa doom bu jigéen da nga leen war yar da nga leen war a yar du du ma ne ñoo war a yem. Mhm. mais li nga li nga war ku jigéen ki noonu nga war a yare ku góor ki. Mhm. ndax góor ak jigéen après ñoom ñooy dem fon fonder une famille. Mhm. donc waruñu bàyyi privilégié góor ñu privilégié góor. jigéen. ñoom ñaan ñëpp lañu war a euh, yarandoo jox leen le les une bonne éducation ñoom ñaan ñëpp ndax ëllëg ñoom ñoo war a nekk magu réew mi mhm. Mhm. bu ñu waxee tam euh, santé de la reproduction madame Cissokho xam nañ ne c'est un peu plus large euh, jagleel ko li nga xamante ne moom di ndaw yi nekk ci buntu foofu tamit wall woowu dinañ ci farataal li laal lépp lu jëm ci wàllum planification familial am na ñoo xamante ne guddi yu ñu toll seen xel tamit euh, xawut a jàpp loolu ndax euh, ci wàllu woowu aussi tamit euh, du ngeen di farataal di ci xaw a am ay ay ay jafe-jafe ngir seen communication mun a jàll wala ngeen mën a wax les partenaires les conjoints yi ko sekk que lii c'est pour le bien-être de la famille. waaw ba léegi loolu moom des na Sénégal des na lu bëree bëri bëri mm-hmm. bëri waaye li seetlu mooy suñu tranche d'âge yi xam ne sax jigéen ñi ñu ngi ñëw di wasin dañuy am quatorze ans bu ñëw wasin mm-hmm. dinañ am quatorze ans boobu tamit mën na am jëkkër donc quatorze ans boobu am na am jëkkër ñëw wasin donc ñëpp ngi ci biir mm-hmm. waaye su fekkee ne jigéen la boo xam ne ni dafa commencé activité sexuelle am képp koo xam ne dafa am activité sexuelle am ak âge boo mënti tollu dañ la war a accompagner liñ la mën a accompagner mooy lenn espacement des naissances. Mm-hmm. espacement des naissances parce que xale boo xam ne nii dafa am quatorze ans mu ëmb soo ko bàyyee bu ñëwaat quinze ans wala quinze ans et mu ëmbaat te kooku nekk na koo xam ne nii dafa yor bassin immature. Mm-hmm. bu yoree bassin bu fekkee ne dafa ñëw li ñuy li wax mooy mooy butut euh, njurkaayam matagul pour mën a jël ëmb. Mm-hmm. kooku soo ko bàyyee mu ëmb ñaanuma ko yàlla mais maar day tàll mën na ci am problème mm-hmm. buñ jëlee tamit góor ñi aussi góor ñi boo xam ne nii dafa commencé def euh, dafa teel a commencé euh, active sexuellement comme liñ mm. koy waxee mm-hmm. kooku tamit buñ ko accompagner wul ëllëg mën na am ay infection yoo xam ne mën na ko teree am doom mm-hmm. donc yooyu yëpp mu ngi ci biir da ngay gis xale boo xam ne ni boobu tranche d'âge yi dañ ne bu mu def xale bi bu mu def planning dëgg la planification familiale Euh, gënul waaye su fekkee ne dafa nekk xale boo xam ne dafa commencé def euh, dafa commencé active sexuellement su demee ba benn instant mu ëmb mën na ci loru wala mu jéem a dindi ëmb bi bu dindee ëmb bi mën nañ ko tëj prison mhm. donc conséquences yooyu moom la ñu war a mesurer ñu xam ne le monde évolue ba xale bu ne particu am na particularité bi su mhm. fekkee dafa ne xale boo xam ne dafa bëgg a téye boppam ba kër baa muy am borom kër mhm. ñu accompagner ko ci loolu ba kër baa muy am borom kër. dan mhm. moom loolu dund mais fekkee dafa xale xale boo xam ne euh, commencé na active sexuellement kooku dañ ko war a accompagner. Mhm. wax ko danger yi ci ne wax ko maladie maladie transmissible yi am wax ko tamit mu maytu jël ëmb. Mhm. loolu la rek. donc dafa dafa nekk benn réflexion boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a toogaat. réfléchir ci mën a accompagner suñu ndaw yi. ci loolu. Euh, justement par rapport ak foofu certainement il vous arrive ngeen di dem euh, au niveau des autres régions ndax approche bi day nekk la même bu ngeen nekkee Dakar ak euh, yeneen régions yi mu expliqué wu parce que des fois pesanteur socioculturelle yi ak surtout yenn croyance yi mën na nekk ay ay barrières ndax lu nekk Dakar moo nekk kii Kédougou wala Sédhiou justement par rapport ak contraception yooyu wala par rapport ak planification familiale bi. Mhm. approche yi approche yi moom duñu benn. Mhm. ndax boo ñëwee Dakar Dakar ni ñuy dundee ak région yi ni ñuy dundee duñu benn ba pare kër gu nekk ak contexte am mën naa euh, gox bu ne ak contexte am. Mhm. ndax yow doo ñëw doo tëb rek nga ne da ngay dem kër jàmbur dem dem dem waxaa aborder papa max yaayam di ko wax ne ko kii il faut mu def planning dugg na fii kii il faut mu une manière d'approcher. moo tax c'est ça l'importance des baj des leaders mhm. des bàjjenu gox mhm. ndax ñun mën nañ dugg ci koñ dugg ci kër yëpp kenn du xam sax lan mooy suñu objectif fekk na kenn moo ñu yëkkati mhm. donc yooyu c'est des stratégies yoo xam ne ñun dañ koy def bu dee ci région yi la tamit Kédougou même chose la communauté sooy dugg ci ci ci ci ci quartier wala délégué wala wala commune jàmbur il foog nga tàggoo mm-hmm. nga wax di nga am koo xam ne di nga ko yëg wax lii la yëkkati mm-hmm. léegi nag nga nga xam nag ban ñoom seen réalité lan la mm-hmm. tu t'adaptes à la situation pour nga mën a ñu mën la déglu ci li ngay wax communication boobu c'est important donc c'est différent Dakar d'autant plus que nit ñi ay appartement lañu ñuy dëkk bopp sa bopp la ñuy dëkk mm-hmm. Dakar surtout li ñuy bëgg li ñuy gën a bëgg mooy la discrétion mm-hmm. pardon mm-hmm. la discrétion si tu ne boo fekkee ne amoo yenn discrétion yi soo commencé wax rek dañ lay arrêté par contre bu dee fëlale man nga jaarale bu dee Kédougou la si région yi man nga jaar ci bàjjenu gox yi parce que ñoom ñoom lañ gën a jox nañ leen euh, cër boo xam ne nii dinañ xam ne secret seen secret dinañ leen ko dencal parce que lépp lépp lépp lépp si sutura mhm. la euh, sénégalais bëgg mhm. lu ne fàngaaral bëgguñu ko mais sutura dafa baax ci lépp mhm. noonu daal dañ koy oh. dañ koy doxalee c'est-à-dire y a beaucoup nag y a de de de yoo xam ne ni euh, ministre dont de la santé nous a formés sur ça pour nga xam na ngay aborder nit waaw lii valable Dakar da valable lul si région yi. Mhm. mu mel ni kon bàjjenu gox yi ñoom ñooy assurer li nga xamante ne moom moo di relais yi. relais yi waaw parce que xam nga ñun bu ñu jógee ñu dem euh, ci communauté bi wala ñu wax ko bàjjen bi ñëw na. boo mën nekk fépp à cent pour cent. Mhm. mais kee dëkk ca biir gox ba. kii di fanaan ak moom bu ñu bokkul kër. Mhm. su génnee dina ko gis. kooku moo gën a mën a def si bi. ñoom suñu limite dañu limité dinañ dem ci gox yi mais xam nga dëkkuñu fa te duñ fa fanaan. Mm-hmm. moo tax nag ñoom ñii acteurs communautaires yi parce que bu ñuy wax sax duñu wax bàjjen kese mais les acteurs communautaires yi dëkk ñu nekk dëkk ak population bi. Mm-hmm. ñooñu moo ñooñu mën a jàppale si suñu liggéey boobu. Mm-hmm. pour mm-hmm. euh, ci ci ci ci ci ci jàppale boobu lay bëgg ñu taxaw ci ban fànn lañ leen lañ leen di jàppale ci communication bi la ci porte à porte la euh, ci waxtaan yi la wala ci ban anam lañ leen di jàppale ba ngeen gis ne vraiment yéen fu mu nekk nii bu am nga di ngeen di liggéey en partenariat wala en symbiose avec les réseaux communautaires wala les les relais communautaires waaw euh, xam nga cela dépend rek mm-hmm. si sujet bi ñu yëkkati. Mhm. ndax sujet bi ñu yëkkati euh, man nga balaa ngay dugg da def da ngay wax ak bi bu fekkee ne xam nag maîtriser na famille bi. Mhm. mu wax la aperçu ci seen commune li ñuy bëgg li ñuy bañ kër gi paa li muy bëgg paa bi li muy bañ ndax yow nga xam yow booy dem nan ngay nan ngay aborder ñoom. Mhm. parce ñoom le plus souvent bu fekkee ne dafa nekk problème boo xam ne ñoom mën nañu ko régler ñoom dañ koy régler bu ñu ñëwee rendre compte mm-hmm. mais su fekkee ne dafa nekk problème boo xam ne da leen dépassé li ñu leen di wax dañuy ñëw rendre compte mm-hmm. su ñu ñëwee wax ñu ñun dañuy seet naka lañ mën a ban stratégie la ñuy jël pour mën a jàllale suñu information jàllale suñu communication mm-hmm. loolu nag daf ñuy jaral ñu liggéey ko préparé wu dem ba ci kër ga bu ñu demee xam euh, borom kër gi naka la ñuy naka naka la ñuy waxee ak moom mm-hmm. même suñu habillement sax dañ koy seet dañ koy xoolaat pour dem pour mm-hmm. wax ak ñoom mm-hmm. xam ne ñun ñoo bokk ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk lépp waaw nous sommes pour la santé de la population mu mu mu mel ni eh, yor li nga xamante ne moom moo di santé de la reproduction yombul moo xam ci adolescente bi ba ci sax ki nga xamante ne bi moom moo nekk euh, la femme mariée koo xamante ne ah, day ah. di wësin d'accord mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu déglu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Maimouna Samb Cissokho mu nekk li nga xamante ne moom moo di coordonnatrice en santé de la reproduction foofu ca district euh, sanitaire bu Gaspard kamara waaye tamit nekk li nga xamante ne moom moo di sage-femme d'État euh, Maimouna nag dañuy dugg ci beneen euh, pàccu waxtaan bi nga xamante ne bokk na ci émission émission bi tey jii dañuy farataal di dégg prématuré prématuré yenn saay sax nga gis koo xamante ne dafa tuuti wala dafa xiiboon ñu lay café ne yow de prématuré nga prématuré nga ñu bëggoon xam euh, prématuré moom euh, lan lay signifier en terme un peu plus simple pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy déglu. waaw Fatou xam nga jaajëf maa ngi lay jaajëfal ci question bi. Mm-hmm. xam nga prématuré euh, li tax ñu naan prématuré ëmb dafa am benn diir boo xam ne dañ ko ci xayma mhm. niñ ko xayma olof danaan neuf mois neuf mois ñi ñu naan léegi ah, semaine lañ koy lañ koy mesurer quarante semaines mhm. donc ku am loolu rek ëmb boobu dañuy jàppane ne ëmb bi mët na mooy ëmb bi wasin na ko fu ñu ko war a wasinee su fekkee ne dañoo am benn wasin boo xam ne dafa am avant muy am li ñuy wax trente sept semaine semaine mooy avant muy amal muy matal huit mois am mm-hmm. yi boobu dañ naan dafa ëmb bi euh, dafa wasin te heure wasinam jotul loolu la mm-hmm. donc bu fekkee ne tamit dafa dépassé quarante deux semaine mi ñuy wax boobu tamit dañ naan dépassé na terme mm-hmm. donc prématuré nag dafa nekk euh, loo xam ne ni nii a remarqué ne dafa bokk ci li ñu war a maytu mm-hmm. li ñu war a maytu ci jigéen mm-hmm. ndax wax nga ko sax si biir wax mm-hmm. dañuy wax doom bu ndaw doom bu ndaw soo amee doom bu ndaw rek dañ naan euh, yow ku tuuti rek dañ naan yow prématuré te am na ñoo xam ne dañuy tuuti ta fekk ne mat nañ donc nekkul ci ci ci ci ndawaay bi ci bu ñuy bu ñuy calculer weer yi ëmb bi war a am ak semaines yi ëmb bi war a am loolu la ñuy calculer pour xool ndax ëmb bi mat na wala matul. Mhm. ndax prématuré la wala du prématuré. Mhm. waaw euh, mu mel ni prématuré dafa am ay niveau yu bokkul bu ma la déggee bu baax dafa mel ni am na trois niveaux prématuré prématurité muy prématurité moyenne bi dafa mel ni wax nga ko trente trois ak trente sept semaines ak grande prématurité bi ah bu ma juumulee muy entre vingt huit ak trente deux euh, semaines mm-hmm. ak extrême te bi bi nga xamante ne avant vingt huit semaine la mm-hmm. Mm-hmm. waaw Euh, léegi nag ñu bëggoon xam euh, ci wàllu euh, prématuré boobu noonu ban moom moo gën a am pourcentage bi nga xamante ne moom moo gën a kawe et particulièrement fii ci suñu fii ci Sénégal bien sûr waaw fii ci Sénégal prématurité bi am na am na mais pour nga wax bii moo gën a bëri le plus souvent grand prématuré yi mooy li entre vingt huit euh, semaine et trente trois semaines comme bi mm-hmm. ngay bi wax mm-hmm. boobu am na fi euh, waaye bi ñun xam nga Europe moo ñu gën a développé pour mën a euh, gérer prématuré yooyu prématurité yi ndax Europe ñoom même su amee vingt six semaine vingt huit semaines mën nañ ko mën nañ ko sauver mm-hmm. mais Sénégal li ñuy wax mooy dañuy xeex ak ëmb ba au moins mu mu mu téye ëmb bi ba am trente quatre semaines. Mm-hmm. suñ ko mënee trente quatre semaines ba trente sept semaine donc diggante boobu la nga xam ne bu fekkee ne am nañ ko ci lañ gën a mën a gérer gestion wu prématurité dinañ am yeneen de parce que yàlla moo fi ne. Mm-hmm. dinañ am xale yoo xam ne dinañ ko mën a sauver. Mm-hmm. mais bu ñu xoolee sur le plan scientifique le avant après trente deux semaines sax. foofu la ñuy gën a mën a am yaakaar en trente deux trente trois semaines. Mhm. waaw pour man ko gérer. Mhm. Mhm. Euh, mu nekk loo xamante ne xam naa dafa bokk ci dundu ni doomu aadama rawatina. ci femme bi nga xamante ne moom mooy jii boo ñu la doon laaj lan mooy euh, cause prématurité lan nga ñu ci mën a wax euh, docteur Maimouna Samb Cissokho. waaw cause pré prématurité parce que balaa loolu sax euh, li ñuy war a définir mooy prématurité li ko tax ñu koy tudd. Mm-hmm. am na lu ñuy wax am menace de prématurité. menace d'accouchement mm-hmm. prématuré. Mm-hmm. ndax menace boobu dafa nekk loo xam ne ni xam nga ëmb normalement euh, sa biir warul warul commencer metti mooy li ñuy wax contraction utérine donc bu fekkee ne yow da nga commencer am ay contraction Euh, ay ay sa biir commencé di metti comme mettitu mat mhm. voilà tax mettitu mat boobu mooy tax li ñu naan sa buntu butitu njurukaay day ubbeeku ndax su fekkee ne dafa am euh, dafa nekk yaay dafa nekk xale mhm. sànq wax nañ ko mhm. sa butitu bi matagul pour mën a jël ëmb wutu njurukaay bi ndaw na na nawaay boo xam ne loolu mën na tax mu wasin te heure wasinam jotu mm-hmm. loolu lañu remarqué mm-hmm. su fekkee ne tamit dafa mag de trop dafa dépassé ay quarante quarante euh, euh, quarante ans ku jigéen ki mm-hmm. loolu aussi mën nañ jàpp ne war na mën a wasin normal war na war a mën a wasin prématuré waaw bu fekkee ne aussi dafa am benn formation boo xam ne ya ji da am war na ko mën a andi Mhm. moo tax nag lu su suba lu lu yooyu yëpp parce que buntu njurukaay bi bunt bi la ñuy bañ mu ubbeeku mhm. léegi ni mën a fexe ba bu foofu ndax yàlla dafa def de telle sorte que dafa mel ni dañ koy fat ba kër baa ngay matu mhm. léegi soo matoo nag ngay soog a ngay ngay muy soog a libéré wu pour nga mën a accoucher moo tax ñuy tere jigéen ngay liggéey liggéey bu bëri ndax su fekkee ne dangay liggéey liggéey bu bëri di yëkkati lu diis di di di yëkkati boo yëkkati lu diis noonu mën nga ubbi sa butu di njurukaay mm-hmm. te yow doo ko yëkk mm-hmm. loolu moo tax nag mooy li ñuy wax hygiène de la grossesse mm-hmm. soo ëmbee aussi da nga war a am hygiène de la grossesse parce que prématurité boobu mën na am mën na dal ñëpp waaw wax naa ko maternité si côté yaay ji mën na am anomalie euh, mooy butu njurukaay bi am problème xol bi tamit gaaw a wala nga am infection. Mm-hmm. infection boo nañ infection mën na nekk infection urinaire. Mm-hmm. même infection générale loolu mën na mën a indi sa butitu njurukaay. Mm-hmm. li ko mën a indi aussi euh, op euh, mooy ëmb ak ànd ak yenn feebar yi. par exemple nga ëmb amee tension. tension boobu noonu ngay amee sa tension di yéeg mën tax nga wasin te sa heure wasin jotul. mën na nekk ay seex tamit mm. su fekkee ne danga seex mm-hmm. seex boobu mën na mën nga wasin te sa heure wasin jot mm-hmm. waaw sur le plan économique aussi wax naa ko mooy tranche d'âge yi mm-hmm. waaw ak liggéey bu bëri bi même tux cigarette boole nañ ko ci classé nañ ko ci lii mën a indi prématurité waaw donc yooyu yooyu yëpp signes yooyu yëpp ma mën na ko mën a influencer. Mhm. bokk na ci tamit euh, certainement ñu bëggoon xam rek yow wax nga euh, les causes euh, causes yi nga xamante ne moom moo di cause générale yi certainement. Mhm. mais tamit mu mel ni am na ay causes yoo xamante ne dañ koy wax ay causes durant la la la grossesse. bokk mhm. na ci ay accidents hémorragiques certainement ak développement yi nga xamante ne day nekk yenn infection ci placenta bi am déet. yenn infection ci placenta bi xaw na xaw na xaw na sori pas infection sax. d'accord waaye dafa euh, placenta yàlla bind na ko noo xam ne dafa am foo xam ne dafa war a tegu. Mm-hmm. donc su fekkee ne dafa am décollement. Mm-hmm. wala mu am euh, benn euh, ni mu tegoo. Mm-hmm. tegewul noonu normal loolu mën na ko indi. loolu loolu mën na ko indi aussi. waaw mais aussi li ko mën a Euh, bëri naa mm-hmm. ça dépend des de des kii rek des femmes mm-hmm. des femmes ndax am na am na jigéen ñoo xam ne suñu ëmbee seen ëmb du mat mukk neuf mois mm-hmm. parce que loolu kol bi bu ñu xesee ba toll ci ci euh, sept mois et demi rek seen butt bi njurkaay day ibbeeku donc ñooñu mën nañ def benn sukkus wala benn kii bu ndaw rek ñu accoucher wala mën nañ sax stressé wala ñu am benn traumatisme rek déclenché wu ñu daal di commencé def ay ay contraction pour accoucher. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, lu ni mel euh, lan lan la mën a jur comme conséquence maanaam lan mooy conséquence euh, suite bébé boo xamante ni dafa juddu prématurément. waaw conséquences yi ñuy gën a yi njëkk a noté mooy comme ni nga ko waxee bébé bi dafay ndaw. Mm-hmm. bébé bi dafay ndaw. léegi bébé bi su fekkee ne dafa ndaw mooy xam nga bébé bu normal dafa war a am euh, dafa dafa war a dafa war a am un poids qui est supérieur à deux kilos cinq cent mm-hmm. ba trois kilos neuf cent quatre vingt dix pour ne pas arriver à quatre kilos mm-hmm. donc yooyu bu su su dugg su amee moins rek dañ koy wax li ñuy wax petit poids de naissance mm-hmm. petit poids de naissance boobu mooy jëg mooy conséquence bi bi bi jëg léegi à part petit poids bi mooy xam nga xale bi dafa war a am ay réflexe mhm. yoo xam ne nii dafa war a mhm. mais xale bi dafay dafay dafay dafay euh, réflexe yi dafay ralentir mhm. day ralentir ba pare moo tax xale bi buñ koy buñ examiner balaa ñuy wax ne prématuré la sax il yenn signe am na yenn signe yoo xam ne dañ koy xool yooyu moo ñuy ne prématuré mm-hmm. yaramam bi aussi vif ni mu waroon euh, mel euh, rouge vif dafay dafay wàññeeku mm-hmm. waaw mm-hmm. donc yooyu moom ak ah, prématuré ñoom ñoo ànd waaw même euh, tànkam yi buñ ko xoolee dafay crête plantaire yi ni ñuy wax ba ko examiner dañuy xool ne que ni mu waroon tracé woo dafay manqué tuuti donc yooyu yëpp ay signe prématurité la mm-hmm. waaw mm-hmm. bon conséquence yi aussi yi yi mu mën a am mooy que xale bi dañuy jàpp ne poumon yam yi matul bu baax a baax mm-hmm. waaw comme matul bu baax a baax moo tax euh, si euh, si bu ñu xamee ne que euh, ku jigéen ci mënuñu mën a fexe ba du accoucher dañ lay defal li ñuy wax benn produit boo xam ne nii dina ñu def dañu permettre ñu am maturation pulmonaire mm-hmm. maturation pulmonaire boobu moo ñuy jàppale ba xale bi bu juddoo après du am problème respiration respiration mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, ci ci ci ci wàllu woowu sax euh, dañuy des ba léegi ci wàllu woowu mu mel ni am na ay complications yu mën a euh, tuppee ci benn xale bi nga xamante ne eh, dafa juddu nekk prématuré xam naa sax du ñàkk ne am na ay jàngoro yoo xamante ne bu weesoo détresse respiratoire du ñàkk am na ay jàngoro yoo xamante ne vraiment doom bu juddu nekk prématuré dina ko am tey ji lan nga ñu ci mën a wax ci yenn complication yi de manière un peu plus détails waaw. Hmm. donc complication yi xam na ni war na ko mën a am pour commencer commencement bi mooy difficulté aliment d'alimentation. Mm-hmm. parce que xale bi xam ne dafa dafa ndaw kooku il foog ñu jàppale ko pour mu nàmp ndax foofu bu nàmp bu aliment buñ ko alimenté wul rek dafay déshydraté day ñàkk ndox ñàkk euh, suukar ma ñàkk euh, glycémie ñàkk loolu yépp moo tax nag surtout problème difficulté alimentaire la moom aliment parce que alimentation bu jëlul meew mu mënul sax weenu yaayam il faut que ñu ko tuuti ndax mu mën a bañ a am plongé vers dootu dootu maladie donc surtout loolu mm. ak euh, am na aussi li ñuy wax euh, hémorragie yoo xam ne nii mën na ko dal donc loolu aussi ñu ngi ciy xeex ba xale yi yëpp bu ñu juddoo dañ leen di defal vitamine A. Mhm. pour ñu bañ a am loolu. Mhm. apnée respiratoire mooy respiratoire yi euh, respiration bi wax nañ ko des fois dafay mën na mën mën na kale. Mhm. et mën na aussi parce que day fragile de telle sorte que mën na am infection di tax euh, crèche yi ak ah, ak ah, néo service néonat yi. dañuy tenir compte bu baax a baax a baax a baax sur lutter contre. Mm-hmm. contre euh, contre l' mm-hmm. li ñu mën a def rek mooy dañuy bañ nit ñi dugg fa même seen du duñu dugg ci biir fi ñuy couveuse yi. Mm-hmm. duñu dugg ci biir saal yi am couveuse yi parce que xale yi dañuy fragile de telle sorte que moins de microbe mën na leen gaaw jàpp. donc surtout loolu fragilité boobu ah anémie bi aussi. mën na ne euh, complication yi anémie la. ndax su fekkee ne euh, li nga li mu war a jël ci alimentation jëlu ko. donc signe kii yooyu yëpp dafay dafay manqué mm-hmm. waaw loolu daal mm-hmm. lañ ci gën a tiit lañ ci gën daal mm-hmm. bu weesoo anémie bi nga wax ak infection bi mu mel ni lu ñuy duppee jaunisse jaunisse tamit euh, xaw na bëri ci ñi nga xamante ne dañoo nekk prématuré jaunisse bon jaunisse lan ngay wax xanaa fièvre fièvre jaune nga bëgg a wax ictère Hm. alo hm, sama recherche laa ko gisee de. ak hectare xam naa hectare lay doon. prématuré affaire affaire foie la ci foie bi lay jàpp waaw. hectare la waaw hectare la. waaw hectare la woon d'accord léegi ñu bëggoon rek nga nga nga expliquer ñu vraiment ci côté boobu noonu jaunisse bi eh, lan lañ leen ci war a gën a mën a def parce que yaa ngi may wax xam naa hectare bi moom mooy terme médecine bi certainement. waaw ndax euh, prématurité boobu ñoom ñu leen euh, yóbboo crèche. ndax dañ leen di yóbbu crèche. Mm-hmm. dañ leen di yóbbu crèche couveuse dugal leen ci couveuse donc dafa am li ñuy waxee bilan. Mm-hmm. dañ leen war a defal ay prélèvement pour xool ndax seen taux de bilirubin lañ koy wax fan la toll pour xool ndax dañ am iter mooy jaune. Mm-hmm. jaunisse la ñuy wax mais da ngay boo xoolee xale bi nga xool euh, muqueuse mi dafay jaune. mais jaune boobu balaa ñuy mën confirmer ne que maladie la. parce que zone boobu xale yi dañ koy xale yëpp dañ koy am. commencement bi mais balaa ñuy mën a confirmer il faut def prélèvement def analyse pour xool taux bi ndax normal na su fekkee ne normal na ñu xam na ne c'est normal bu fekkee ne tamit normal am na un traitement boo xam ne dañ ko ko war a defaral. Mhm. waaw. Mhm. d'accord euh, tey jii rek dañuy des ci wàllu woowu ba léegi eh, xale boo xamante ne dafa juddu nekk li nga xamante moom moo di prématuré ndax dafa am ab diir boo xamante ne war na ko nekk ca ca ca ca hôpital ba. waaw ah, a ndax euh, bu nekkee prématuré. Mhm. léegi sax dañuy dugal yaay yi ndax ñu bokk ci faj bi. Mhm. su fekkee nekk dafa nekk prématuré dafa ndaw. à part ndawaay bi xale bi mu ngi nàmp amul benn problème mm-hmm. dans le traitement léegi dañuy participer loo yaay ji mm-hmm. yaay ji il faut mu ñëw bokk faj mi mm-hmm. ni mu ciy bokkee mooy yaay ji dañ koy jàngal naka la mën a def ba couveuse boobu ñuy dugal xale bi yaay ji mu def li ñuy wax méthode kangourou méthode kangourou méthode kangourou bi nag bu fekkee ne xale bi dem na ba mën a nàmp mu ngi nàmp mu ngi sucé bu baax boo ko tegalee même euh, kii bi borom wala nga jël sa dina jël ñu defal ko méthode kangourou mhm. dañuy jël yaay ji yi wax yaay ji mu dugal ko ci diggante ñaari weenam yi ak biiram bi da mhm. koy simmi ba mu set mu dugal ko ndax tàngaayu yaram boobu muy muy muy muy muy lëmas yaay ji mhm. loolu dina ko mën a jàppale te boobaa di xale bi dina mën am gain de poids. Mm-hmm. même gain de poids yi mm-hmm. moo tax du xale yëpp aussi la ñuy dugal couveuse. Mm-hmm. du xale yëpp aussi la ñuy la ñuy yaay. ça dépend bu fekkee ne amul benn infection bu xale bi am seet nañ ko sur le analyse yëpp amul benn problème. dañuy wax yaay ji ñëw day séjourné ak ñun sax ba ñu xam ne yaay ji capable na muy yaay ji muy papa ji. ndax convocation bi dañuy yaay ji la ñuy privilégié mais papa ji day ñëw maam ji day ñëw képp koo xam ne ni nekk ñi ci kër gi koo xam ne mën na def méthode kangourou boobu day ñëw mm-hmm. su ñëwee ñu wan leen naka la ñuy defee kangourou ndax soo ko joxee yaay ji yaay ji dugal ko ci mm-hmm. dënnam bi xam nga kooku du liggéey mm-hmm. xam nañ kër yi ni mu demee kooku bu xëyee war a togg añam mm. war a jël xale bi dugal ko ci dënd wi xam nga kooku du mën a liggéey mm-hmm. moo tax nag dañuy xool kër gi tamit ñeneen ñoo xam ne mën nañ porter mm. ñu jàngal leen bu ko ji porté wul papa ji porté wala maam ji porté mm-hmm. ñëppay mbokk mm-hmm. faj mi daal léegi ñëpp la dugal seen loxo boo ñëwee ci kër ñëpp ngay participer loo ñëpp ngay wan ndax ñu mën a jàppalante kër gi dem kanam stratégie boobu daal moom la ñu nekk moom lañ nekk di def bu fekkee ne xale bi bu hôpital la mu suñu loxo yaay ji mooy ñëw jàppale ñu ci loolu mais bu fekkee ne dem nañ ba xam ne mën na génn boobaa dañuy woo famille bi expliqué leen nu mu demee yëpp Mm-hmm. ak ah, ni mu war comporté woo ak xale bi. Mm-hmm. kër gi. mu mel ni ca ca ca ca bërëbu hôpital bi da ngeen di tàggat jur yi comme bu ñu dellu ca kër ga ñu mën a vraiment prendre en charge tout tànk bi nga xamante ne. certainement difficulté wala jafe-jafe ko daf jafe daf koy yomb. waaw waaw ndax ndax ndax formation boobu aussi ñu leen di wan surtout liy jëkk a ñëw mooy set bi. Mm-hmm. yaay ji ci boppam. la ñuy wax moom mu mu mu fexe parce que comme doom ji dafa dafa fragile il faut mu redoubler d'effort ci ci ci wàllam ci màllam set bi mhm. di raxasu ay loxom lépp lu mu mënti def day raxasu même bu fekkee bu day liggéey entre même bu day raxasu vingt fois dans la journée bu mu tayal na dem di raxas loxom mhm. xale bi tamit lépp lu utiliser day raxasu mhm. day raxas ay loxom ba mu set pompe bagage am yi ba set soogo nàmpal doomam mhm. doom ween bi aussi dañ koy raxas ba mu set mhm. waajur yi tamit bu dee papa ji la bu dee maam ji ñoom tam dañ leen wax ñu ñu ñu ñu raxasu ba set sangu ba set pour mën a dugal xale bi mhm. ci seen dënn waaw ah, ndax ñun bu ñu demee ba xam ne amul li ñu li ñuy namm mënuñu ko am ci kër gi duñ ko def bu ñu leen évaluer ba xam ne ñi ki boo ko defee boo ko waxee pour mu def kanguru du ko mën papa ji tamit ñu woo yaay ji woo ñëpp entourage bi ñu demee xam ne mënul ne tamit dañuy ut yeneen pexe. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ñu bëggoon la laaj rek leen ndax uh, dafa am ay doom bu juddu nekk uh, li nga xamante ne moom moo di prématuré ndax dafa am ay conséquences moo xam ci wàllum aptitude am ni muy doxee wala capacité jàng loolu dañ ci bëggoon rek nga nga expliqué wuñu ak aptitude verbale yi. Mm-hmm. waaw Fatou am na ñoo xam ne nii euh, ñu ngi wax loolu mais prouvé scientifique bi mm. tamit euh, mënuñu ko mënuñu ko garantir parce que le cerveau mm. nekk na loo xam ne nii ah dafay mat su xësee ba ba mat mën nañ ne ndawaay mën na ndaw mais mat na mm-hmm. donc su duñ ne prématurité rek dafa prémat rek dafa euh, il n'est pas intelligent déedéet jotewuñu dara mm-hmm. ndax xale yi moom boo doon wàññe kër yi xam ne yore nañ seen euh, seen doom yu nekk préma prématurité ñoo xam ne dañ ko dund ñooñu amuñu benn problème amuñu benn problème ñu ngi jàng am nañ seen cursus normal ñu ngi jàng normal ñu ngi dem mm-hmm. waaw donc a aajawul ci ci loolu mm-hmm. mm. waaw ñu bëri sax dañ leen di farataal di duppe ay ay ay bébé miracle certainement yooyu xam naa yooyu mm-hmm. xeet moo koy jur waaw bébé miracle parce que kon day <laughs> uh-huh. nga nit moom bu gisee dara tuuti rek da yaakaar nekk baaxul uh-huh. te fekk ne euh, di ci loolu uh-huh. euh, di ci loolu euh, que xale bi moom vraiment comportement scolaire am ak intelligence am et tout yëpp côté boobu yaakaar naa ne su amul benn infection boo xam ne da ko dab wala mu am leneen loo xam ne ni am na ci xale bi doon benn problème. d'accord mu mel ni kon ay ay ay croyance la yoo xamante ne certainement. waaw scientifiquement ça rest à prouver. ça reste à ndax bu fekkee ni comme li ma wax prémat bi ñu waxee prématurité kese xale bi loolu la te toppatoo nañ ko te li ñuy gën a muy gën a soxla mooy chaleur boo xam ne nii dañ ko ko war a apporter. muy mhm. tàng pour mën a màgg. Mhm. soo ko suñ ko accompagner ci loolu amul benn infection boo xam ne ni dab na ko. Mhm. ci diggante bi. du am benn problème li may wax euh, maturation pulmonaire loolu aussi pour respiration bi la dañ koy accompagner suñ ko accompagner ba xam ne ni fi mu ne nii amul benn problème loolu moom vraiment euh, amul benn conséquence. Mhm. boo xam ne mën na am ultérieurement. Mm. ñu bëggoon xam rek euh, ndax lii di prématurité euh, bokk na ci li nga xamante ne dafay favoriser lu ñuy duppee mortalité wala morbidité périnatale lan nga ñu ci mën a wax. waaw waaw Fatou xam nga comme ni ma wax rek dafa fragile. Mm. ndax dafa dafa laaj farlu. Mm-hmm. farlu boobu nag il faut ñëpp jàpp ci li tax ñuy farlu boobu. ndax ragal nañ ne xale bi dafa tuuti suñ ko suñ ko xoolul bu baax a baax a baax mën na ci ñàkk mën na ñàkk euh, bakkanam mën na ñàkk bakkanam ci diggante bi feex vingt huit minutes moo tax nag surveillance boobu ak farlu boobu yu mét pédiatre bi wala sage-femme bi koy seet te ciy def loxoom mm-hmm. waaye li ñu gën a mooy liñ naan entourage bi yaay ji papa ji maam ji bàjjen bi ne ñëpp jàpp ci accompagner xale bi pour xale bi mën a màgg mm-hmm. ba dootul nekk ci benn risque mm-hmm. ndax ndax euh, euh, bébé prématuré dañ leen classé si si risque yi risque risque de décès néonatal ñaari xale yi seen rythme de croissance bokkul ci ban moment de sa vie la ñuy mën a xam ne kii ba euh, l'espoir est permis mun na génn ci situation bi nu mel waaw foofu gain de poids bi muy am la mm-hmm. su fekkee ne dem na ba gain ba ba jàpp gain de poids am benn nga am prématurité boo xam ne nii mu ngi doon posé deux kilos par exemple mm-hmm. mu ñëw ñu toppatoo ko ba mu am dem am deux kilos cinq cent trois cent sam dañuy jàpp ne moom ak yeneen xale yi mm-hmm. benn la benn la ndax ni ñu waree toppatoowee bébé prématuré boobu moom noonu la ñu war a toppatoowee bébé bu jur soogu judd mm-hmm. parce que bébé yi door yi yi juddu yëpp dañoo fragile mm-hmm. donc foofu renforcer surveillance bi pour képp kuy xale même bu nekkul prématuré dañ ko war a renforcer mm-hmm. comme mu dugal ko nag ci programme élargi de vaccination ndax duñ ne bébé préma la dafa ndaw wala dafa dafa judduwul te heure yu tam rek duñ ko vacciner suñu gain de poids bi ñu bëgg ci moom bu ko amee day dem commencer série vaccination mm-hmm. parce que dañoo remarqué ne am na bébé préma yoo xam ne dañ leen doon tëj tëj tëj tëj ba dañuy raté seen vaccination yi loolu la ñuy bañ moo tax léegi ñoom aussi dañ leen di dugal ci circuit ñu ñëwee consultation ñu dugal leen circuit ñu dem defi seen vaccin dem defi seen lépp ñu boole nag xale yëpp ñoom ñoo fragile mm-hmm. dëgg la dañuy euh, mettre accent sur prématurité mais xale yëpp ñoo fragile mm-hmm. donc surveillance bi aussi dañ leen di surveiller ñoom ñëpp donc duñ ne kee moo gën a fragile kee la ñuy surveiller bàyyi kee ñoom ñëpp la ñuy surveiller ñëpp la ñuy surveiller mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Euh, par rapport par rapport ak euh, vaccination euh, bi nga wax ndax ndax yomb na dafa mel ni côté côté côté prématurité am na benn communication bu am solo bi nga xamante ne way kër docteur yi war nañ ko amal ci société bi ci wéyjur yi moo xam mak wala ndaw. waaw pour vacciner pour vaccination. Mm-hmm. parce que programme élargi de vaccination bi daf nekk. programme bi. xale bu juddoo ñun rawatina ñun ñuy dëkk ñun ñu nekk Afrique mm-hmm. dañu war vacciner suñu njaboot vaccination ndax dañ naan premier vaccin bi mooy nàmpal boo nàmpalee sa doom <coughs> après série vaccinale daf ko war a respecter mm-hmm. su paree mu dem defi BCG am mm-hmm. hépatite léegi sax biir salle dañ koy def dañuy def hépatite defi BCG su continuer bu ñu paree bu amee euh, quatre semaine après six semaines ñu dem commencé. Mm-hmm. def suñu def def suñu suñu série vaccinale ba mu mat sëkk. Mm-hmm. pour aar xale bi. Mm-hmm. aar sa njaboot. ndax depuis des années depuis des années amoon na ay maladies yoo xam ne dafa amoon léegi amatul. xale bu vacciné wu ba ñu jokk kàttam enfant complètement vacciné sa xel dal. daa ko mën a aar ci lu feebar bëri. Mhm. Euh, euh, waaw foofu moom xam naa ne dañ fay daal di teg li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi mënuñu la jël en tant que sage-femme d'État te ñu wax ci sa corporation bi tey jii Maimouna Samb Cissokho bu ñu waxee sage-femme fii ci Sénégal lan nga ñu ci mën a wax seen i jafe-jafe seen i lim euh, ngir ñu mën a yaatal waxtaan woowu xam naa ne boobu mooy pàcc bi nga xamante ne moom la ñuy tëjee suñu émission bi tey jii le nga nekk sage-femme femme d'état sage femme déta nag buñ ko waxee amaanama lim bi mët na wala matul seen problème pour intégrer et fonction publique lan nga ñu ci mën a wax ci fànn boobu madame Maïmouna Samb Cissokho oui waaw kon rafetlu naa question bi mhm. ndax euh, ñun sage femme nekk métier boo xam ne c'est un métier très noble mhm. bu ñu bu ñu bu gox bu ma da commune bu ne war na mën a am poste de santé am sage-femme yu fa ne ndax léegi sax si benn poste de santé benn sage-femme doyul bu ñu mënoon am ñaari poste sage-femme si benn poste de santé te poste santé yi nekk Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp loolu buñ ko xaymee te ah ñi nekk sage-femme doyul doyul sax pour population Sénégal mhm. ndax population Sénégal soxla nañ lu wàllu lu lu jëm ci wàllu santé de la reproduction donc sage-femme yi bu leen jëloon yokk seen effectif fi mu ne nii nag man li ma gën a euh, jaaxal mooy am na sage-femme yi fi nekk yoo xam ne liggéeyuñu mm-hmm. ndax koo xam ne liggéey na sage-femme ba dem yor diplôme am kooku warul toog ci kër kooku dafa war a dem liggéey ndax xëy na recrutement yi demaytul noonu ndax am na sage-femme yu fi nekk dañuy chômer mais dama naan sage femme warul chômer ndax sage femme foo mënti nekk war nga mën a liggéey mhm. ndax liggéey bi bëri na bëri waaye boo xam ne yow su fekkee ne da nga toog sa kër sax war nga mën a liggéey mhm. ci si des kay mooy ñu harmoniser ko xool naka la utiliser sage femme képp kuy sage femme diplôme boo ne tey euh, euh, génn nga yor nga sa diplôme ñu ut na la teg nga dem liggéey ndax ñëpp soxla nañ loolu daal laa bëggoon ñaax sama mbokku sage-femme mhm. yi ne bu leen toog mhm. ndax liggéey bi jaamu yàlla la mhm. même bu nga fayul liggéey bi jamu yàlla la ndax koo liggéey koo liggéeyal mun la jaay jëf loolu rek fay la bul xaar ne dañ lay fay wala amoo euh, kenn fayu la xaalis que yow doo liggéey da war a dem liggéey ndax liggéey baa ngi fi buñ ne liggéey amu fi rek loolu moom dañuy nax suñu bopp liggéey bi bëri na ñi ñiy former sage-femme doyul te am na sage-femme yu toog ci kër yi liggéeyuñu mhm. loolu daal moo nekkoon sama cri de cœur boo xam ne ni mënoon naa ko partager ak ak yéen peut formation bi des na mhm. parce que ñoom aussi il ñu comprendre loolu nga xam ne liggéey sage-femme du retraité a foo mënti toog ak foo mënti nekk tu peux qui peut euh, aider pour la santé de la population. Mm waaw Maymuna Maymuna nga nekk sage femme dama lay dinaa la xaw a tooñ tuuti ah parce ci société bi la ñu dëkk des fois sax xam naa ne di nga di ngeen am ay yenn retours yi il des fois ñu ne boo demee yenn saa ay visite ak yooyu da ngay xaw a di nga jànkoon daje ko xamante ne certainement yenn saay xam naa xolam du neex mu bugg ko reper répertorier wala mu daal di koy sippi ki nga xamante moom moo di patient am bëri yenn saa yi ah, ñu bëri ñoo xamante dañuy wax. sage-femme yi seen xol dafa dese laa biir am na wala amul mais ndax ci wàllu woowu aussi tey jii jotul ñu ay nit lañu ah comme on dit dañuy xëyee suñu kër dem ci suñu bërëbu liggéeykaay ñun ñëpp ay nit lañu mais ndax tey jii aussi il ne vous arrive pas après retour yooyu yëpp ngeen di amal ay ay ay sensibilisation ay ay waxtaan euh, di di di tàggat xale yi pour gën leen mën a bon ñu amam maitrise ba euh, ku jóge këram ñëw ci bërëbu fajukaay yi mhm. vraiment ñu dalal la parce que quoi qu'on puisse aussi dañ koy faratal di wax vérifié na wala vérifié wul yaa ma ko gën a xam ndax yow yaa ngi ci milieu bi des années mm, mm, mm, <laughs> waaw li nga wax euh, voilà li nga wax dëgg la euh, ndax euh, li li ma naan dafa war a am dënn bu yaa ginnaawam aussi dafa war a yaatu ndax nekk nañ mën naa ne benn métier am nañ benn métier boo xam ne dafa délicat mm-hmm. waaye parce comme man maa ngi ci biir euh, enseignement yi bokk naa ci ñi di former sage-femme yi di ni donc man dama war a nekk exemple ñoom nag jéego yi ñu ciy def xëy na ñi ñu ñoo dul mais sage-femme lu ci ëpp changé nañ sage-femme yi dëgg bu njëkk ba dañ ko daan wax de mais fi mu ne nii du ma ne ñëpp ñëpp euh, elles mais ñu ngi ciy def ay jéego ndax ku ci nekk bëggoo ñu ne la yow da ngaa bon ndax terme boobu Sénégal kenn bëggu ko formation bi rek lañ mën a appuyer xamal leen ne liggéey bi ngeen di liggéey da ngeen di liggéey ci ay nit nit boobu liggéeyoo si machine liggéeyoo ci kenn nit boobu dafa am lu muy sentir donc yow sa formation boo il ñu xamal leen ne que il faut empathie il faut ngay empathie am empathie hmm. envers le les, les patientes. les patientes ba compatir. ndax loolu formation bi ñu remarqué nañ que l'accueil liñ ci waroon def bu baax a baax a baax manqué woon na mais léegi renforcer nañ leen mhm. te fi mu ne nii am na li ñuy wax renforcement de compétence mhm. am na ñuy def ay supervision di leen fekk seen biir bureau yi de consultation mhm. di observer si ni ñuy liggéeyee di leen corriger si ni ñuy liggéeyee ñuy accueillir accueillir malaat yi ñu leen di xool man mën naa ne loolu sama liggéey la dangay ngay toog nga observer salle d'attente bi observer ci biir observer dugg ak moom ak consultation nga xool nu muy comporté woo ndax kooku soo ko defee ak moom nga bu paree nga wax ko lii waroo ko woon def lii waroo ko woon def lii euh, femme bi bi mu la waxee lii lii nga ko ton beneen yoon da ngay xool ni nga koy tontoo si loolu lañ nekk nag mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla jàppale ñu ba li ngi naan sage-femme yi di mënuñu atey mu nekk suñu ginnaaw. Hmm. ndax ñun ñu ngi ciy liggéey liggéey bu bu bu bu bu mucc ayib ndax setal suñu der ci côté boobu. Hmm. ndax ñu ay jigéen lañ comme ñoom. Hmm. moom ndax sa moromu jigéen boo xam ne ni yow mi nekk sa femme man wasin wasin nga sax jaar nga ci def nga ay visite soo accueillir malade da nga ko war a mu xam ba mu gënal ko ñëw consultation gënal ko këram. ndax loolu aussi fi ñuy waxee ne am na sage-femme yoo xam ne dañ koy def am na fi ay site mën nañ fi ay yoo xam ne nii que sage-femme bi boo fi ñëwee da lay accueillir da toppatoo da lay nabbi nabbi mën naa ne Gaspard Camara gi ma nekk sage-femme yaa ngi fi ñu ngi leen di surveiller te ñu ngi recevoir malade yi correctement malade yi ni ñu bëri bëri ngi def suñu jéego pour recevoir leen ba kuy ñibbi doo ñibbi waale ak sa kër mère mm-hmm. feneen visite boo ko amaatee di mm-hmm. Mm-hmm. mu mel ni foofu def ngeen fa ay ay jéego mu nekk ay ay ay acquis yu considérable euh, madame somb si soxo waxtaan wi nag am na solo lool waaye dafa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci jaajëf di la jaajëfal di kontaan mm-hmm. kontaan si li ñu ma invité ndax ñun aussi soxla nañ loolu ndax bu ñuy liggéey rek ñu bëgg suñu liggéey di feeñ ñu xam ne tooguñu rek di xoole ñu ngi ciy def lu ñu mën pour améliorer la santé de la population plus particulièrement les femmes en âge de reproduction ñu ngi leen di jàppale mu loolu moo ñu tax a jóg jigéen di wasin ci jàmm salaam moom mu mucc doomam mu mucc te am li mu bëggoon li mu doon xaar mu jot ko mm-hmm. si bu ñëwee ci hôpital yi parce que moment bi fi période bi ñu toll nii nit ñëpp koo gis elle est bien informée nit ki loo ko def moom xam na ko donc loolu rek mooy li ñuy wax humanisation des soins faire participer euh, la femme dans les soins. mu xam ne soins yi ñun ñëpp ñoo ko bokk. waa kay jaajëf d'accord eh, eh, jaajëfal ko bu baax a baax moom mi nga xamante ne moom moo di Maimouna Samb Cissokho vraiment di rafetlu aussi disponibilité bi nga xamante ne manifesté na ko ginnaaw bi nga xamante ne sollicité nañ ko pour suñu émission bi di SOS santé mbokk auditeurs yi ma fàttali ne ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé Maimouna Bousso Maimouna Samb Cissokho nag moom moo nekkoon tey suñu invité mu nekk sage femme d'État waaye nekk tamit coordonnatrice éducatrice en santé de la reproduction foofu ci district sanitaire bu Gaspard Camara SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité